ñun itam am nañu droit apprécier loolu itam faw nu nangul nu ko am ñu droit apprécier am nañu droit de waa mais warul woon def lii suñu xalaat dafa la ñu yem. Mhm. moom mi def nag xam na li moo def waaye ñun nañ ñu may ñuy xalaat tamit du dëgg en passant. Mhm. waaye il a le droit de faire sa ak ci am droit waaye léegi léegi. Mhm. ñi kaa bloqué diggante këram ak cité wala tribunal ak feneen. ñoo ka bloqué buy def caravane. Mhm. c'était attendu. Mhm. mais loolu yëpp <clears throat> ngaal mhm. objectivement koor ak ñi ñoo seetaan. waaw Baye Assane dañuy wax ne. billaay buntu bi bu ngeen ko tëjul. Euh, euh, dama leen di wax dama leen di wax dama ne. buntu bi bu ngeen ko tëjul daa wax. Baye Assane bàyyi bàyyi ma buntu bi bu ngeen ko tëjul. <laughs> jërëjëf jërëjëf alors euh, s'il vous plaît euh, ñu ngi jégalu bu baax ci dagg-dagg bi nga xamante ne am na léegi lii lañ leen di wax mu ngeen ñëwee ci live rek euh, réflexe bi ngeen war a njëkk am mooy ngeen liker pour sécuriser le live euh, ginnaaw dagg na léegi ñu ngi jégalu bu baax alors da ngeen di liker waat ngeen partagé waat comme ça ñu mën a ànd ak ñun ci waxtaan parce que des na yeneen i ponk yoo xamante ne war nañ cee wax Baye Assane tu disais. je disais juste que. Mhm. image Sénégal egg na fa nga xam ni. yóbbu nañ ko fa ci yàqu-yàqu. te dëgg yàlla génnoon nañ fa ñu ngi woon ci beneen niveau. faw nag faw nag ngaa la boo nekkee sa kilifa xam kilifa moom war ma rek. mais bu dee kilifa bi dafa dëkkee juum nag baax na nga ne ko ah kilifa bi yow tam ah ngay juum rek président Sall les sénégalais ne sont pas du tout contents vraiment ñu waxalee yàlla rek les sénégalais ne sont pas contents. rendez-nous notre sourire s'il vous plaît. Mm-hmm. rendez-nous notre sourire rendez-nous notre sourire monsieur le président Sall comment vous pouvez comprendre que Sénégal am cinq trophées continentaux en un an en un an même pas quinze mois en un an cinq trophées continentaux monsieur le président. Mhm. la jeunesse est est est, en colère ba Sénégal di baax benn match bu ñu ko gagné réew mi gën cinq trophées continentaux parce que environnement bi la. Mhm. te environnement bi monsieur le président yow ak sa équipe yéen a kaa teg si vous passez votre temps à dóor jàppe dóor jàppe dóor jàppe mais chocolat bu ngeen ñu jox du ñu ko yëg du saf du safee. Mhm. les gens ils sont arrivés corps boo xam ne. man léeg-léeg ma dégg ay kàddu ma sentir benn haine bu incroyable ma ne ah lii. yàlla na jur jàmm. imagineel ngaa la tey man ma nekkoon mbokk direct ci président Sall di dégg dina am loo metti de est-ce que président Sall waruma sóor man mbokkam si loolu may dégg mook ñi mu àndal est-ce que waruñu sóor li may dégg xam nga tey am naa métti constaté coono bi Ousmane Sonko di daj je suis sénégalais et être humain je ne suis pas sauvage am naa métit ci gis waa Kër Matar ba ñu leen di génne ñuy daw kër gaa ngay tàkk am naa métit ci kër Serigne Mbaye Thiam mu nga tàkk na ñu ah est-ce que amul benn mag bu nekk ci kaw mu mënut a génn yàlla xam et tout cela mais monsieur le président c'est à cause de votre politique c'est de votre politique votre style de management qu'on en est arrivé à un seuil haineux du terme entre gouverner et gouvernant loolu moo la dëgg su Abdoulaye Seydi Sow ko salut ku nu respecté la ku nu seqal jàmm la hélas di def caravane xale yi sonkorisé ko maanaam vous interdisez et c'est extraordinaire kii bu mu génn bu mu circuler bu kenn dugg bu kenn génn mais mu ngi bës mu ngi bës mu ngi bës ça veut dire quoi da ko teg injustice dooleem ëpp leen doole pourtant yéen a ko ëpp moyen yéen a ko ëpp possibilité yéen a ngi kaa teg lu dul yoon mais ci biir teg lu dul yoon bi yéen a ngi affaibliru nguurub Sénégal yaa ngi wàcce sa bopp parce que bu muy Sénégal di ci biti ŋàbb nanu leen ŋàbb nanu leen sax ŋàbb nanu leen mais am leen am leen beneen taxawaay ñii leen ŋaaŋ yàbbi leen yéen bu dee da ngeen ŋaaŋ sax ngeen yàbbi affaire bi wàcc aujourd'hui les dégâts collatéraux mm-hmm. plus de six voitures voire sept ak corbillard juma Sacré-Cœur bi mm-hmm. yëpp tàkk ci benn ay minutes ci lan ci lan dem ngeen barricade kër jàmbur xale yi réagir ça veut dire quoi te ngaa la lu war a mën a ñàkk mais buñ ko jéem a amal ngaa la ñun xaj ñu si yenn yi ngaa la billaahi wallaahi tallaahi Sénégal xajul si lenn li Sénégal xam ci lan la war xaj. président salle est la jusqu'au vingt cinq février deux mille vingt quatre voire le deux ou le trois avril deux mille vingt quatre incha allah bu jeexee jeex na ñu def passation yu rafet mu dem ci jàmm ak salaam nekk ci jàmm ñu ne ci jàmm du dëgg. voilà mais est-ce que ñi mu àndal xam nañ ni xam nañ ni xam nañ ci jeexal na parce que euh, euh, tey euh, bi ñu jugee ci événement yi nga xam ne wala manifeste série de manifestation yi amoon en juin en mars deux mille vingt et un tey li ñu li président bi mu génnee. li mu waxoon mooy li fi amoon dootu fi amaat te Baye Assane mu néew wala mu bari ñu ngi nemmeeku ne boobu ba tey depuis euh, mars 2021 ba tey saa yu ñu téyee kii di Ousmane Sonko euh, ay série de manifestation dafay amaat ba dégâts collatéraux yi yow tudd nga ko léegi nii euh, mooy sëriñ Mbaye Thiam mi nga xam ni lakk nañ otoom ci buntu këram Matar Ba lakk ay otoom mu nekk lu lu lu doy waar est-ce que finalement est-ce qu'ils réellement déchiffré le message image euh, de cette su ma su ma gisee damay sentir déglu naa si ñenn ñu réagir ñu wax mais damay sentir benn genre euh, kii. soofantal wala mépris. Euh, euh, au-delà du mépris forcing damay sentir forcing cest à mhm, mhm. par force lii laay def par force nii laa demee. Mhm. damay amal lii damay xaw ndax comprendre la. damay damay damay damay. waaw mhm. force reste à euh, euh, nu mu tuddati euh, xuli oui il faut qu'on leur montre yéen amuleen lu ngeen noo wan yéen a yore doole saway xulil awee ah eh lii la mu doon écouteur xulil maa kaa dindi u def ko nii ma ko dindee u def ko nii u tëj que na ma naan lii écouteur la jaru ka yaa yore nguur yaa yore budget yow yaay yow la ñu voteel yaay signé yaay décidé àll épp xulil nga taxaw naan dinaa leen wan ne loolu ñuy wan nun xam nañu yow koy doxalal yoon li ngaa wane nag na aw ci yoon mais bul wane lu awul ci yoon du dëgg bul wane lu awul si yoon quelque soit la force nag injustice de trop day jul révolte populaire soulèvement populaire te loolu baaxul yàlla ñu ci àll musal parce que danger wu soulèvement populaire xam nga daal kenn du si mucc même peuple bi def soulèvement du ci mucc kenn du ci mucc mais nag fa muy gën a méttee mooy si ki nga xam ne mooy sooke loolu parce que même tey sax bu maar day um si bu fi loolu amoon ba mu jeex ba tàkk bañ ne sayee ñoom dañuy ñëw ne leen yéen kaay leen yéen def lii yow yaa nekkoon ministre de nangam yow yaa nekkoon ministre de nangam yow yaa nekkoon yaa doon directeur de cabinet diw yow yaa doon dis loolu loolu il faut que kilifa yi sóor ko de quel que soit ce qui va passer. Mm-hmm. boo rendre compte fii daa rendre compte fële donc fook que à un moment donné aisance bi ngaa nekk nga xam da ngay jël sa téléphone tag loo soxla mu ñëw ah j'ai besoin de 500 millions ñu indil la. j'ai besoin de euh, il me faut un tout suite ñu indi ko non à un moment donné il faut nga sóor ne yàlla bi la def jox lii appal naka bis dina jeex de waaw bu jeexee nan ngaa def ban taxawaay nga amoon ak nit ñi bi nga ko yoree léeg-léeg nag kilifa yi bu ñuy wax da ngay foog ni ñoom dañ leen ne à vie à l'infini tiit sax léegi léeg ñuy wax sax. yow da ngay toog di leen ñaanal naan ay waay incha allah ay waay yàlla na yàlla na da nga leen kii toog di di la di la xool ñaan gi bu fekkoon jibal nga ko ci kaw dala naan yow munaafiqun nga looy ñii loo leen di ñaanale ñii li ñu teg yëpp loo di ñaanale nga ne xanaa doon nit ak jéem a nite di def yëfu nit du tere nag ñu mer ñun nag bu nu meree lu ñuy def dañuy dugg suñu biir néeg xul bu nu meree. Hmm. suñu biir néeg la ñuy dugg tëju takk ñëpp ñëpp kii xulil la daggal sa kaw li noo daggal nag kenn xamul la mu doon te kenn xamul ki noo daggal ka mu doon waaye mer nañu xulil tubaab bu meree danaan merde italien ne panculo katso italien laa la wax la muy wax xulil sénégalais bi daan ne waay sarap lii keneen ka wax la si ne parce que nit la yëfi nit la kilifa yii kilifa yii autorité yii ñuy gis en veste en kaftaan en tout ce que kilifa ca kaw ba ca suuf bu ñu meree dañuy dañuy daggal kilifa yi bu ñu nekkee ci xaal nii dañuy daggal daggal fa mu gën a da kiiwee nag kawe yi fi nit la ça quoi xoolil kilifa yi fa ñuy meree di daggal ñoom foofu la war a xalaatee population yi fa ñuy meree di daggal. du dëgg kilifa yi fa ñuy meree di daggal foofu lañu ñu war a xalaatee population yi fa ñuy meree di daggal mm-hmm. kon fi nit la. kon nit warut a teg moroomam lu lu tegu wut ngaa la nous ne pas d'accord en politique oui parce que mag yow bokkuñu idée moi je fais de la politique la stratégie de développement du Sénégal fii la ma ko teg Nabukor fait de la politique la stratégie de développement du Sénégal fee la ko teg waaye léegi yow Baye Assane nga ne non non non Nabukor il faut mu d'accord si li ma li ma bëgg Nabukor ne la non léegi comme yow yaay gérer réew mi gérer soo paree man dinaa ñëw xool li may proposer essayer de réussir le maximum man bu ma ñëwee ma xool li may def. Mm-hmm. nga ne non non non non viens avec moi ñëwul ak yow nga nag def ko ennemi y a problème. tàmbalee defante te nguur du defante. nguur du defante. jërëjëf defante Ndiogou merci. Mm-hmm. nguur du defante. et sa c'est valable pour le pouvoir en place c'est valable pour le pouvoir à venir. ce n'est pas parce qu'on ne partage pas les avis des uns et des autres qu'il va falloir que mën nga ñëw nag yow yore sa politique. di doxal sa doxal mais sa doxal mën nañu bañ a agréer c'est pas parce que wu ñu que ñun dañ la contre essayer de voir nan ngay def ba mu agréé ñu ñu dem dans le bon sens aujourd'hui li ñu fee wax yépp ci chantier tout ce qu'on veut les Sénégalais souffrent le martyre et vivent mal loolu nag ka ko waxul nag lan ngaa wax. Hmm, doy na waar doy na waar jërëjëf euh, jërëjëf Seck euh, alors euh, ginnaaw doxalin yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko te nga wax ko léegi nii muy jugee ci nguur di dal soit ci opposition bi wala ci askan wi nga xamante ne peut-être ñooy revendiquer li nga xam ni moom la ñu warloog ñoom lan la mën a jur à l'avenir pour pour gouvernement bi nga xamante ne mu ngi ñëw. Eh, yow de boo doon élève kii sixième ma ne